kuy wut koo xamante ni ab fokkat la wala ab tappalekat na nga ko xooli feneen ñun aujourd'hui nous avons sacrifié beaucoup de choses bàyyi lu bari loo xamante ni moom la ñu bàyyi pour politique politique bi ñuy def waxtu wii ñu toog fii wuutale wuñu ko ak sunu waxtu julli jot ñu dem julli ji wuutale wuñu ko ak koo xamante ni dafa bokk ci jàngu bi loolu laa jàpp waxtu julli waxtu dem jàngu bi jot mu dem ci jàngu bi donc on ne pas en politique pour jouer la politique est une chose extrêmement donc c' est l' avenir du pays dont il s'agit bu doon sunu avenir bopp rek xëy na ñun mën nañoo def ay pexe ba génn ci mais politique ak république mooy une promesse républicaine qui voudrait que chaque génération vive mieux que la précédente loolu moo tax ñun ñuy xeex su doon buggaan ak boppam rek buggaan ak boppam kon tey ji dugg politique di toog fii am na sénégale yoo xamante ni aujourd'hui ils ont choisi autre chose nous on a fait le choix difficile de renoncer à beaucoup de choses pour être en politique dugguñu ci pour ay poste dugguñu ci ay ay waaye ñii nga xam sénégalais dañoo am yaakaar ci ñoom le 24 mars indi leen ñii dañoo taxaw ci yàq réew mi dañoo taxaw ci toroxal nit ñi tudd nañ léegi le colonel Cheikh commissaire Cheikhna Keita mais kooku pour des raisons humanitaires rek benn bés waru ko woon a def ci kaso bi mais jëmm jooju il a sacrifié combien d'années kooku kooku xawuma ko mosuma gisanteeg moom mais kooku ñaata ñaa est-ce que kooku li mu jël risque sol tenue pour défendre la Sénégal pour lutter contre la corruption la concussion mais bu fekkee ne sor bii la ñu bëgg a teg ñi nga xamante dañu soloon tenue pour défendre seen réew mais kon jaratu ko kon sa vivre sa sa cette volonté commune de vivre ensemble amatul njëriñ donc ni ma waxee ci commissaire Cheikhna Keita noonu laa mën a waxee ci Ahmed Suzanne kamara ay tappale moom moo leen yóbbu ci kaso bi Cheikh Mouhamadou Fadilou Mbacké foofu laay jeexale moom moo doon wax naan nit ñi ku xajoowul seen bang bang matoo leen kilifa donc Bougane waxu fi Bougane waxut Bougane li mu def li mu wax defar la ci jubloon ak wane yoon ki nga xamante ni moom moo toog ca palais ba yëkkati kàddu yu rëy ngir déstabiliser li nga xamante ni faire sauter les verrous de ce pays il s'appelle Cheikh Oumar Diagne te tey te tey te tey kenn woowu ko waa Touba yëngatu nañ ba sonn waa Tiwaawoon yëngatu nañ ba sonn réew mi yëpp yëngatu nañ ba sonn Pape Amadou Sarr ba mu defee asaka ji Pape Amadou Sarr bi yoroon DER bi mu defee asaka ji président Macky Sall da ko fiy jële mais moom li mu wax kii li mu wax kenn mësu koo wax ñu bàyyi ko mu toog continuer donc et ça j'en appelle encore à la vigilance de la presse La presse a un très grand rôle à jouer dans ce contexte-là. La presse n'a pas à être pour ou contre. Ñun ñëpp on vient du monde de la presse. On a été formé dans les grandes écoles. li ñu jàng ngeen jàng donc soyez du bon côté de l'histoire Théophraste Renaudot le père santant du journalisme daf doon wax ne ñun notre rôle c'est pas d'être pour ou contre c'est de mettre l'épée dans la plaie donc soyez du côté soyez du côté du peuple donc maa ngi gërëm Bougane bi ñu invité ci conférence de presse bu ñu invité sax ñu ñëw parce que loolu mooy suñu responsabilité benn waay dafa wax ne quand ils sont venus chercher les juifs je n'étais pas juif ma jàpp sama njàmbur quand ils sont venus chercher les chrétiens je n'étais pas chrétien ma jàpp sama njàmbur quand ils sont venus chercher les musulmans je n'étais pas musulman ma jàpp sama njàmbur quand ils sont venus me chercher il n'y avait plus personne pour me défendre xaayaan xaayaan ku dégg séeréer asalaamaaleykum wa s'il vous plaît ma amoon rek ay yóbbante yoo xam ne amoon naa ko su ma ko président maye ma jottali ko la diaspora est ici représentée à travers Pape Gora Ndiaye mu ngi suñu ginnaaw